yéen ñi ñuy topp fii ci Leewtoo TV ñi ngi leen di bëggee di leen sant di leen gërëm ku ci nekk ñu lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal comme ni ngeen ko xamee nag depuis boobu léegi yéen a ngi dégg annonce bi le 27 mars ak le 28 mars fii la ci Joal Fadiouth dëkku Yaxya Diop dëkku suñu papa Robert Ndiaye Leewtoo production def lu am solo teg fi 1 million 500 pour mbër yi gis ngeen ko mbër yaa ngi noonu di dugg si. nit ñaa ngi noonu di dugg si amateur yi incha allah ni ngeen ko xamee tey di ngeen dundaat làmb bu baax a baax ak Leewtoo production wante ak Leewtoo pro ak TV ma ànd ak sama caméraman Mansour Fall le benjamin di caméraman mañ dañuy ànd dugg ci biir géew bi jël ambiance jël xarfa xurfa wante jël li nga xamante ne bii mooy bëre yi fi am tegtal ko suñu mbokk internet ki nga xam ne Leewtoo TV rek la ñuy bëggee ay ca mañ ñu ànd dem ca biir waawaaw waaw yéen a ngi koy gis noonu ma ngay neex Aïcha Mansour Aïcha Mansour ma nga noona loolu moo di cal cal yaa ngi noonu butéel yaa nga noona béjjén yaa nga noona siwo yaa nga noona lépp ay xarfu xurfu la def nee naa la làmb dafa bëri ay feem wante làmb dafa bari ay tegtal ñooñu ñooy ànd ak mbër ku ci nekk ak toogal ci sa cal waaw waaw bëggee doom ndey mbaa nga jàmm waay ay ca Mansour lekkat lekkat ga damaa gis ñu xaatim ko ca biir jël ab xànc dugal ca def ca ndox waaw waaw lu nekk ci biir leket gi. ke lu nekk ci lekkat bi. ki nga xam mun a laajte de waaye bu dee mat moom. lu nekk ci lekkat gi Baye Fall. xool ma. nekk ci leget gi sa waay nee na du wax. day taj loolu waaye bañal loolu day taj. ayca gars yi bañ nan bañ nan nee nañ du nee nañ ñu wax ba léegi Mansour ñu continuer ci cal yi jëlal ma cal yi jëlal ma cal yi waaw waaw. ak xiir gis ci biir cal gi wala leket la leket leket neex na torop waaw maa la lay yokk ziar Baye. waaw sant bu baax a baax. waaw fii moom mooy loolu yu xoyam xoyam rek. waaja xaw ma woon waaw waaw waaw waaw mag la sama grand la waaw waaw waaw waaw waaw damay fàtte doo dem e kanko jeeme sar jom kanko jakoyal ko ñaame ñowdana cosaane e kanko ƴeeme sar jam kanko jago yalko ñaame ñodata cosane e kanko ƴeeme sar jam kanko jago yalko ñaame ñodata cosane e kanko ƴeeme sar jam kanko jago yalko ñaame cosaane may sambal may sambal kangu ñeeme sa jam kangu ñaapa yal ma ñaame ñëw na la cosaane dawda keita may sambal dawda keita kangu ñeeme sa jam kangu ñaapa yal ma ñaame ñëw na la cosaane kangu ñeeme sa jam kangu ñaapa yal ma ñaame ma euh, keke cent nangam kilo quoi eh. waaw ah, sama gars yi maa ngi leen di ziar. ziar nañ la. naka waar. sant yàlla. tur bi nan la. man Bébé Ladoum. Bébé Ladoum. waaw gis nga. foo jógee. man Fadial. Fadial waaw. lan moo andi tey. dama ñëwoon ci tànk yi pour bëgg a bëre gars yi ne damay peese cent treize kilos la quoi cent treize kilos waaw mais gars yi dama ci tànk yi gars yi bañ. mais suba nga bind ci luur bi. Diofior laa jëm quoi. waaw. d'accord. waaw yee. mais namoon nga lamb. waaw namoon naa lamb trop. bilaahi bu baax a baax a baax. barki Serigne Fallou. mais lu tax lu tax nga nekk 113 kilos di bindu lese. mais xam nga ñun ay xale lañu. 93 la xale bu ndaw la mais xam nga rek yenn gabaare yi doo ko tollee mooy loolu noonu. mais gars bi la ñuy xool. waaw yee mais nag yàlla baax na du subaa moom yaa ma gën a xam loolu la. subaay dàq. waaw yee. champion maa ngi lay ziar. waaw champion dooli ziar rek. ba am nga jàmm. waaw maa ngi am jàmm bu baax. barki démb mbëkkante waat nan tey mu mel ni taay yaram dafa tàng. waaw gis nga ko man nii laa mos a na arxuraan. ngemb daal bëggoo mu fendi. waaw. da bëgg muy tooy rek. dóor rek mu dem. tey lan moo andi. tey jël lamb bi. waaw moo ma fi indi de jël kese. waaw njool mu sana. fàttali ma tur bi. njool mu sana. bu sana Ndiol bu sana jaajëf Ndiol jaajëf daje la dafa def macha wante am nga combat <laughs> ay ca Mansour Fall ñi ngi noonu ci combat préliminaire njool bu sànnaa nga noona moo ñu won gannaaw nee naa leen xale bi la wante Mansour maa ngay am ñaari combat foofu booleel ma ñaari combat yëpp ñaari xale yaa ngay déglu wante waaw Assane Waalo Gueye borom Linguère maa ngi lay ziar waaw waaw njool bu sàmmee jox nañ ko avertissement aca attention am na ca gannaaw de Mansour waaw waaw ba dan ko da ñu suruxal ko mu jiitu waa mais champion taxawal bëre waay lu xew am nga ñaari avertissement bu temps bi jeexee dangay ngay perte de maa la ko wax ma ngay bëgg a jeexal bëre a léegi attention ñu ngay dëbbante naax ñoom ñaar. waaw waaw. attention. ñoom ñaar tegante nañu bopp. di leen fàttali tey jii ñu ngi fii ci Joal Fadiouth tey jii di samedi le 27 février wante bu leen fàtte suba dimanche le 28 février tamit le 28 mars di moyes ay waaye man lu dox sama digganteeg février waay kàggu borom wasaare lamb maa lay ziar oh, takk nan ko daan nan kooka kooka daanu na de waaw waaw kàggu dafa mel ni bee ndaama ak njool am na beneen njool buy préparé ca gannaaw Mansour maa ngi koy gis ñu koy sottil ñu koy sottil ay butéelam muy def ay débat débam ay ca Mansour ñu ñëwaat ci komba bi ñu ñëwaat ci combat bi attention dara amugul de ma xale ba rëpp na jógaat dem na ca suuf jàpp na takk na takk na xale ba takk na wante ndaama nga takk ndaama du neex a dajale attention mboot ma daa suufe de waaw waaw xale bi bloqué na ko ca kaw ca kaw la crochet ñaari loxo yi bàyyi na ko attention ñaari xale yaa ngay bëre lu neex. ñaari xale yaa ngay bëree bàyyante waat nañu ña ngay lewaatoo ayca ay ca ñaari xale yaa nga ca géew ba ña ngay foxantey baaraam ña ngay foxantey baaraam ba léegi dara amagul ba léegi dara amagul ñoom ñaar ña ngay lewaatoo arbitre soufflé na avertissement lay joxe wala mi-temps la wax nee na e kangu nyemi sar nyam kangu nyoko yango nyame nyodo da chusane e kangu nyemi sar nyam kangu nyoko yango nyame nyodo da chusane mai sambal mai sambal kangu nyeme sa jam kangu nyako yal fa nyame fàttali ñu ci combat préliminaire yi combat préliminaire yaa ngi noonu waaw waaw mañ mañ pro noonu ooy daa yi da ngaa bandi barki Rasul lay arbitre soufflé na o waat leen ca biir géew ba waaw yàgg a yaa ñuy moom ca xale bi takk na ko ma koy ngoobu lan la bëgg xale bi génn na génn na géew bi o oh! jaañay teb jaañay sàjj noonu moom ngeen di dégg muy yaañuy moom attention xale takk na ko Mansour dëpp na ko daanu na arbitre soufflé na jeex na de waaw waaw daan na la waaw waaw poitrine bee tegu ci suuf beneen combat ba bee dafa mel ni ma ngay bëgg yàgg nag waaw waaw kàggu sa mbar maay bëre ca gannaaw attention plaqué nañ ko toog na ooy kàggu sa mbar ma fa <laughs> kàggu sa mbar ma tan ka ngolli ngolli nañu sa mbar ma daanu na attention Mansour mais combat bee ca gannaaw mel na ne yàgg na ne waaw waaw Diep Diagne Diap Diagne le grand tambour-major waaw waaw attention fu lan moo am foofa hee war na leen dombo penalty de da koy dugal wala da koy def na trois appui day jóg day jóg ndaama day jóg wala da dëpp Amansour nee naa la trois appuis trois appuis la def war ndombo war ndombo penalty la ci bëre soo ko amee da koy dugal waroo koo rate xale bi war na ko ndombo da koo bëgg a ruur attention daan na ko ruur na ko oh ndaama la daanu na Mansour daan nañ ko quatre appuis la def waaw waaw ayca Mansour jëlal beneen bi. ay ca ñu continuer ba ñu continuer ba léegi ci combat préliminaire yi Ndeye Adama Jali arbitre nee na leen waaw waaw Baye Fall maa ngi lay ziar. delloo ziar bu la. Kabandi 40 ans. nga jógee. Fambine. Fam. lan moo la andi. Ah, jël drapeau bi ñu beeg moom Fambine. loolu foo ko teg. ah foo teg loolu. fu ma ko teg ah mbirum si yàlla rek waaye ku nekk am nga droit wax li la nekk si yow rek. loolu nga bëgg lool la laa bëgg te loolu am incha allah. gis nga samp yooyu fi nekk. waa gis naa leen bu baax. loo wax ci ñoom. ah wax na ñoom xanaa ku ma si tase rek yàlla daal la jël bu sa toj rek. nam mën nga làmb. waaw bu baax a baax mu wax de. tey bi nga ñëwee takkaan ngemb lan nga yëg. waa li ma daan yëg si làmb rek daa gën a yokk sax mu nekk nii wax dëgg yàlla. dina leer ci kanam. incha allah. jaajëf. waaw dama lay delloo ziar. tur bi nan la. Idrissa mu mel ni namoon ngeen lamb yeen amateurs yi bu ñu ubbi waatee lamb ji bi mooy première euh, lamb bi am fii ci Joal nan ngeen ko gisee. mbégte lañ ci am rek ndax ñun li moo ñuy dundal ñun séeréer amuñu lu dul cosaanu séeréer surtout buñ ko ubbee ubbee ko Joal Fadiouth loolu mbégte lay doon ci ñun waaw. lan ngay wax amateurs yi par rapport ak mesure barrière yi nga xamante ne bii moom la ministre bi digle. waaw mesure barrière yi moom lu mat a jël la maanaam takk masque yi. ba pare ak distance bi dina jafe nag ci làmb mais il faut ñu jéem ko respecter waaw. suñ bëggee làmb continuer. waaw suñ bëggee làmb continuer te gars yi du ñu am ay euh, cas yu bëri ñu jéem a respecter mesure barrière yi rek comme ça autorité yi gën noo jàppale ci li ñu bëgg du tere feebar bi ne fi ba pare te mun nañ seetaan làmb. continuer suñuy activité. yaa nangu ziar. am nga jàmm. mbaa maa la. man Ibou Diaw laa tudd. dëkk fii ci dëkk fii di Joal waaw. noo gisee lamb ji tey. waa lamb ji neex na de neex na de di ñaan yàlla comme lamb ji mu ngi soog a ubbi Joal mu jëm si kanam daal euh, comme waa Joal aussi ñu xam ne lamb lañ am ñu ñëw jàppale promoteurs yi tëgg fii lamb waaw parce que man damay gis benn action amateurs yi dañuy jóge fii pass oto yi dem Dakar fay 5000 dem Dakar billet 5000 muy 10 000 francs que ñun Joal lañ am. sa fii boo si waa si làmb université làmb fii la Joal la kon tey jii. fële Yaxya Diop dëkk. waaw fële suñu papa Robert dëkk. waaw ah. kon dafa jot pour ñu jàppale booy làmb yi ñun nag ay waa Fada production lañ ñun euh, làmb euh, Fada production yi organisé yëpp ñun la ñun ñoo ànd ak Yékini di tëgg mais nañ ñëw jàppale soutenir Joal fii parce que fii mooy lépp daal mooy université bi parce que ay champion rek lañ yor waaw. mooy base bi fii mooy base bi. mooy base bi waaw Joal bu amee bu amul làmb dafay mel ni ceeb ceeb bu amul xorom. ceeb bu amul xorom. waaw làmb kenn mënu koo tudd ci Sénégal doo tudd Joal. Joal sa doo tudd Joal. jaajëf Baye Fall. ñu ngi gërëm aussi suñu champion Yékini ak Gara ñu ngi koy gërëm bu baax a baax nan naanaan la waaw defal nañu lépp ñu Joal lépp la ñu defal lépp waaw du saal salle de musculation boo duggee 300 ngay fay da ngay entraînement ba doyal soog Yékini fi def fi def loolu sa mbër mu am combat soo demee këram mu jàppale la ba nga ba nga dem ba nga ba nga ay kaar ak mbër mu am combat Joal boo demee këram mu jàppale la. jaajëf mbër. Baye Fall wàccal masque bi ñu waxtaan tuuti. maa ngi ziar. maa ngi delloo ziar. lépp jàmm. na mën nga làmb. waaw. tey lu yar mi yëg. waaw ñu koy yëg de. Ah. ñu ay amateur lañ quoi. waaw waaw. làmb na kontaan si rek. di wax gars yi nañ jàpp comme euh, maanaam amateur yi nañ ñëw respecté loi yi quoi maanaam comme lamb lañ wax te ñun lamb rek moo ñu ñor nañ nañ respecté loi yi daal waaw loolu laay wax. tey noo tey fii ci Joal. waaw kontaan naa parce que man moom doomu Joal la waaw bu Joal xewlee damay am contentement bu rëy. waaw la amateur la waaw. waaw waaw char lépp jàmm ah. waaw man la de. amul benn doomu rëcc. waaw dëgg la. <laughs> mais sa laay dafa rafet quoi. kan moo la mañ jëlal ma laay naa la ko. mañ kañ ma kan moo ko daggal nii. ayca <laughs> tey ñu gis la fii ci Joal lamb ji ubbi waat ban yëg-yëg nga am sa yaram. waaw kontaan rek kontaan rek mooy loolu ñu ñoom lamb la ñuy dund. aussi ñuy doomu ñuy doomu Joal Fadiouth mooy loolu kon bu ñu ko tëddee suñu dëkk ma ñuy kontaan loolu nañ ci am kontaante waaw mooy loolu. na mën nga làmb. lool lool sax damaa mënu bëre waaye kon ma sëgg bëre. yaram yaa ngi xasan fi mu toll nii. bilaay walaay. jaajëf mbër. waaw jaajëf rek. ci kaw ci kanam. bañ ñu terminé ci suñu grand bi grand jar nan la. ñu ngi lay dolli ziar dafa mel ni maillot Arsenal nga sol. waa gis nga waaw Arsenal la Thierry Henry 14 bi. mooy sa équipe. waaw Arsenal sama équipe la waaw. ñu ñëwaat ci làmb ji tey ñu ngi fii ci Joal Fadiouth commencé compétition yi xam na ne depuis mois de mars 2020. ba mois de mars 2021 muy at atum yàlla làmb amul fenn ci Sénégal yéen amateurs yi noo leen dundee woon loolu. waaw métti woon na lool métti woon na lool parce que ku xam Joal Fadiouth xam fi ay champion yi fi génnee ñu toog giir boobu yëpp làmb amu fi te ñun làmb dafa bokk suñu culture kon buñ toogee moment yooyu bëre amul dañ koy namm dañ ko namoon parce que lii am nii tey jii ñu ñëw seetaan si ko suñu xol dafa sedd parce que ñu ngi seetaan mbëri poids moyen yi ñooy bëre nii suba war a nekk poids lourd yi mbër yi war fee dajawaat lamb ji gën a neex ñu gën koo yaatal mu gën a neex parce que lamb moom dafa bokk ci culture Sénégal mënuñoo toog te ñu lamb man football bu amee làmb am làmb laay seetaani parce que lamb laa bëgg moo nekk sama dafa bokk ci lu may dundal man waaw euh, lii nii tey jii ñu toog nii ñun ñëpp di ko seetaan bu amutoon duñ fi ñëw. parce que amuñ fu ñu jëm lamb la am kon ibbi bi sax kontaan nañ ci te tamit dafa war na yàgg am mbëri entraîné lamb ji neex gars yi teg ay miis mbëri bëre lamb ji neex euh, encore tamit si côté CNG bi mbëri yi nga xam ne nii ñu ngi bëre ñoom licence yi dañ leen waroon di may lu mu dee dee licence mbër bi dañ cee war a def cinq mbër mi ak quatre personnes yu muy àndal su ko defee boo ñëwetee ci bunt bi doo am benn problème mais da ngay ngeebu ñëw ba ci buntu ñu téela na la ñaari ngay dugal ñi nga àndal doo xam noo leen def loolu dafa xaw a métti loolu tamit dañ ko war a xoolaat daal da ngaa bëggoon CNG may mbër mu nekk juróomi nit waaw quatre personnes la ak mbër mi mu nekk cinq waaw licence bi loolu lañ ci wax a def mbër mi la ak quatre person yu muy àndal mu nekk cinq warul dépassé loolu yóbbante booy yóbbante waa CNG la waaw loolu maa ngi di ñaanal ki nga xam ne nii fu mu toll nii euh, moo nekk président CNG ak mëbét bu mu am ci làmb lu ne yàlla na ko si yàlla jàppale fi nga xam ne ni ki fi newoon ak jéego yi mu def moom yàlla na romb loolu beneen bi mooy euh, commune al Fadiouth bi fii tey jii ñu def ni war na ñu mu fee defaral turbine. dafa war a am turbine. parce que tamit lii neexul en plein neer la ngelaw li fu nekk lay jaar nit ñi fii yaatu na nañ fi def turbine. turbine xaj na fi turbine xaj na fi. turbine bu mag xaj na fi parce que boo xoolee miir ba fa mu yem ak ni ñi fu ñu toog turbine xaj na fi jarul ñu fi def turbine 16 yooyu làmb kenn du fi def turbine que amateurs dañ koy yàq. def ko tribune yi comme def yi nekk si stade nga xam ne dangay ñëw toog jàpp sa njàmbur seetaan mu am loose am lépp waaye def tribune yi nekkuñ si nawet nañ def tribune fii Joal Fadiouth pour ay projecteur def ci lamb ji dox ñu jëm sa kanam làmb ji moom fii Joal day neex de. suba Tapha Tine ak Boy Niang war fee ñëw noo leen leen di xaaree. non man Tapha sama mbër la. Tapha sa mbër la Tapha dama ko bëgg sama xol. mais yem na client. non Tapha Tine yebul client de. Hmm. yebul Boy Niang champion la. Boy Niang champion la mais lu mu doon champion Tapha ko gën a doon champion mbër day am ay recrue rek euh, Tapha Tine dafa amoon ay tolof tolof ci làmb moo ko yóbbee lii mais si yoon Tapha Tine warul ak booy ñaa parce que bu dul dara sax ñoom ñaar duñu catégorie tey jii Boy Niang lu mu am ci Tapha Tine rek euh, ñàkk ñàkk am euh, encadrement Tapha mooy des moo tax booy Niang mën a am loolu mais encadrement bi bu normalé Boy ñaa amul ci Tapha dara. amul ci moom dara tey jii Boy Niang lamb euh, Boy Niang ñi ma waroon a bëral xam nañ leen mais lamb ji dafa am moytu de dafa mel ni dañ lay seggal dañuy ñëw ci yow waxtaan ak yow ba pare soo ko dem seeti mbër male lamb ji dafa am segg mais tafaatin catégorie bu mu waroon a dugg mooy catégorie ñoom bombardier boobu moom daan na bombardier ah daan Elton ñu ñëw di ko jox di di ko jox Boy Niang parce que ndax lan dafa bëre ak Ama Baldé daan ko moo waaw Aïcha Mansour kii mooy total borom Joal Fadiouth barke démb daje nañu Gambie mu mel ni bi lamb tëjee yaa nga doon takk ngemb li doon dem Gambie léegi ñu andi la ngemb lamb lamb sa biir dëkk looy wax. waaw xanaa kontaan si rek xam nga ñun lii lii rek lañ doon ñaan lamb yi ubbi bañ nekkaat xam nga ñun lii mooy suñu métier quoi amuñu leneen lu dul lamb kontaan nañ si trop waaw. tey lan nga andi. tey ah xanaa confiance rek ñaan yàlla jël lamb ji rek. waaw kon lu ma ko doon jëlee Gambie rek ma jëlee ko si gis nga champion yi fi gis. waaw champion yi gis naa leen waaye man champion laa. champion. la champion laa moom. tey looy wax. tey ah xanaa di ñaan yàlla jël lamb ji rek. jël lamb ji yóbbu. waaw yóbbu ko fii Joal fii rek. lamb ji daal bëggoo mu génn Joal. non non bëgguma mu génn fii rek bëggoo mu génn kay yóbbu ko fële kër ga téye ko foofu. ci kanam dina leer. waaw baax na bu la. jaajëf mbër. waaw ok yàlla. Yak production Ndangaan Sambou Yak production Ndangaan Sambou teg nañ fa 2 millions suba dimanche poids léger bi Yàlla nu ko feelante ni ma ko Birame Mathieu dengar dengar